أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات السيئات وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم جنا بن سنت يا الله سبحانه وتعالى جل شيئا تبع عليه الصلاة والسلام سنت مولانا في الوراء شيخنا شيخ أحمد بن بخاري الرسول ومام شيخ إبراهيم فال المجاهد الأكبر ñu ngi ziar mbokku taalibe bu baax a baax di ziar mbokku jullit yëpp di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di leen ndokkee ci bis weeru seelu yi nga xamante ni ci lañ ne muy weeru safar ñu jublu ci bis bu rëy bis boo xamante ni bis la bu Sëriñ Tuubaa woote sant suñu borom muy ci weeru safar wi dajeeg le 18 safar li ko Sëriñ Tuubaa waxee rek. خرجت يوم السبت من الخسر لخدمة المختار في سهر صغر تخم بس لا بوخا منتني تي لا سيرن بي جيغون تاك غاداي غير ديم ليغيال يونتي عليه الصلاه والسلام تاي با سون بروم مايكو لي مو ووتي تي اك تشامس تي لي يمي تي بيس بي موي بي سيرن بي دي ديم بوبو نصران سي تاخاو نون نونو الاسلام غير دانيل كو waaye serigne bi djuk rek taxaw ni may na ma dallu islam seuf len ma djour len ma dana ko jam may khadim rasul fi sodani may ram kharnu bi ani nirani ku ne gis na serigne Touba jafe-jafe yu metti dund ak fimu jaar ak touba bi ak coono yeen ka tek ngir lan ngir yekki ci mu ci islam ak delloosi gi mu delloosi sunna Yonent bi alayhi salatu wassalam ndax sëñ tubaa dafa ne lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatul xara wa inni ahmadu damaa ñëw ngir yeesalaat sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon bis bi looloo ko waraloon muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëriñ tubaa ne xaraj ci yow ma sabt cent mille xasar li xidmatil muxtaari fii sëhri safar muy bis bu am solo ñu ci soññu mbokk taal bi yëpp ñu waajal ko te xam ni sëriñ tubaa amul morom ndax dëkk bi ñu ne di Ndar fi ne sëñ bi tàmbalee woon ndax xalama ni rahman fi safina bi ànd nil xadimu sil madina waaye nafaali xayri laaw xabla fi ndari bi ahli badr usul kadri nafaali xayri laaw xabla fi ndakaaru kulla hasan li jaalul makaalu kuñ suñ tubaa jug na dem ci géej gi ak fi mu jaar yëpp waaye ndar la tàmbalee ànd ak waa ahlu badar ñoo ndar kër bi mu ñëwee bureau bi ci ndar li mu njëkk def mooy julli ñaari rakka sante ko suñu borom kon sëñ tubaa addunaam yëpp ay salaat la woon sant yàlla ak julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee ndar julli fi ñaar raakaay ñaar raakaay la ñu màggal bi mu ñëwee fekk fi nasaraan bi lu mu wax anaa mu dabirul umur maa yàlla suñ bi ni ko kësëbta tubaab bi rëkk taawul ji ne ko maay borom ndar sëriñ tubaa ne ko doo borom ndar boromi narga fekk ndar ndar te da nga deelu yàgg bàyyi ndar ndar borom ndar laa yemutu abada du fi jóg tubaab bi ne ko boo ma xamoon di nga ma moytu Sintuba tubaa ni ko boo demee ba xam ma yow ding ma moy te tay defana ni ne be moy mooy sëñ ndax tubaab be dem ba xam sëñ tubaa non lan ko jaar yóbbu Dakar ba kero ñu joge wa ci tukki bi ñëw waaxu musafir ni fa afawtu anil ahdaay suñ borom ni ko lo wax ci ñom ma def ko ni afawtu anil ahdaay turran sun borom jéggal naa ñep kero ni seigne touba loxom ni wallahu yanzuruni wal xalqu taquni fi al bahri wal bahri sa'naf in bila wallahu yow yàlla yanzuru ni nangul nga ma wal xalq min daa foni ak mu ñu jublu ma fil bëri ci géej gi wal bëri ci jéeri sans naf um bi laa dara njariñ laa lu ant ak lor kon bis bi kenn warul ci ëppale bis la boo xamante ni jullit bis jullit ñëpp la amul xaj amul seen sëñ Tuubaa dafa ni fu waaye mën a ne na nga santale yàlla Cheikh Mouhamadou Fadal ñëw 1948 sëñ Fallou woote màggal ji sama baay bu tedd ba de loolu la waxoon sama sëriñ bu baax ba ñu ne waaw ma ne ma sañoon de ñëpp ñëw ci dëkkam bii ñu ko fii màggal waaye ku mënta ñëw foo ne na nga fa màggale kon jërëjëf Serigne Touba ñu woo mbokk taal bi yëpp di soññi ñëpp di ñaanal ñëpp suñu borom may ñu fekk ak tal ci barke Serigne Touba jërëjëf.